gan gi docteur Bakary ñu ngi lay nuyu waaw soxna Fatou maa ngi leen di fay. ñu am mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM nga nekk anesthésiste réanimateur bu hôpital régional bu gi ñetteelu vague coronavirus bi moom amul lam-lame ñoo ngi ci bu baax a baax cas yu ëpp itam nekk Ndakaaru waaye région yi itam mucc ñu ña ngay am seen wàll ci mbir mi tey lan mooy situation bi ci hôpital régional bu gi waaw Fatou ñu nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu rajo bi di firndeel rek li nga wax ni comme ni ñu gisee kaay ni ñu yokkoo ci Sénégal gi rawatina ci Dakar noonu lañ commencé gis kaay yi mu commencé yokku ci diwaanu Matam démb rek am nañu lu mat fukki e ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci fi nga xam ne fi la ñuy fajee doomu jàngoro fii ci région bi gis nañ ni malade yi ñu doon recevoir commencé waat na yokku. ba tax na sax jamono ji weesu defoon nañ benn réunion pour xool nan la ñuy fexee gën a ñoŋal euh, saytu bi foofu yokk aussi lal yi nga xam ni moom moo war a di recevoir malati yi buñ leen buñ leen jotee may fàttali rek nii foofu ci diwaanu Matam hôpital régional bu Ouro Sogui particulièrement ñoom ñooy jël en charge ñi nga xam ni ñoo amee cas yu gën a garaaw yi foofu ci région bi te ñi ngi amoon ñeenti lal rek pour raison bi yëpp waaye fexe nañ ba yokk ko fi mu toll juróom-benn te ñi ngi xalaat avec l'appui du ministère yokk ko ba mu dem juróom-ñett bu ko matériel yëpp matee. Hmm. kon fi mu ne euh, am ngeen juróom-benn lal euh, ñaata malade Covid ngeen am. fi mu toll ñetti malade lañ yoragum. ci cas grave yoo xam ne ay cas grave lañ waaw. d'accord. Euh, prise en charge cas grave itam euh, ay jafe-jafe amoon na ci ñu ne bokk ci oxygène bi est-ce que yéen ca Ourossogui am ngeen yooyu jafe-jafe. waaw foofu ci Wuro Sogi moom alhamdulilah fi mu toll nii jafe-jafe boobu yegg seegu fa. Hmm. ndax euh, comme capacité litière bi euh, demewul noonu donc euh, centrale oxygène bi nga xam ni moom la ñu am moom macha allah mi ngi dox ci yoon fi mu toll nii. Hmm. yàlla def na daal ba fi mu toll amaguñu jafe-jafe boobu. Hmm. alors situation réew mi ci wàllu Covid nan nga ko jàngatee docteur Bakary Thior ak lan nga jàpp ne xëy na moo waralaat Covid bi jugaat ni mu jugee. waaw yaakaar naa ni bàyyeeku la rek ñëpp a mujjee bàyyeeku parce que dañoo tolloon jamono boo xam ni gisoon nañ kaa yi wàññeeku ci àdduna bi rawatina tamit fii ci Sénégal bu ko defee ñit ñi lépp li nga xam ni dañ ko doon jël comme ay mesures pour euh, fagaru ci ci feebar bi nit ñi mujjee koo bàyyi waaye tamit bokk na ci li taxaat kaa yi bëriwaat euh, feebar bi ni mu ñëwewaat bees ndi beneen kanam nga xam ni wàllante bi dafa dafa gën a gaaw te tamit bon mën nañu seetlu tamit jamono yi weesu ci réew mi événement yi fi xew yëpp rawatina tournée suñu président bi rassemblement wu opposition yi ak yenn manifestation yu bëri yi nga xam ne am na ci réew bi au même moment boobu ñu ngi doon gis ni feebar bi mu ngi doon commencé jug ci yeneen dëkk yi mais teewul ñun ñu jël suñuy matuwaay dañoo continuer woon di dund rek comme si de rien n'était yaakaar naa loolu yëpp tey buñ ko boolee moo nekk conséquence troisième vague bi ñu commencé gis ni ci mm-hmm. Sénégal Euh, ñu wax ba tey euh, ci euh, ñetteelu vague bi yéen lan ngeen di xaar comme situation ci ni yëf yi demee tey ak xëy na bu wéyee nii lan la ñu mën a xaar. waaw li ñu gis ñaari fan yu weesu moom vraiment ragal lu na parce que am chaque jour lu ëpp ñaar téeméeri par bis moom yaakaar naa bu ko continuer di def lu mat une semaine hmm. fi mu ñu jëmale moom du fu neex du fu baax ndax suñu hôpital yi Euh, dina mën nañu jànkonteel ji euh, ay ay difficulté par rapport ak euh, faj nit ñi surtout nag cas grave yi nga xam ni ñoom la ñu war a admettre en réanimation ñoom am fa ay place mooy xaw a peut-être gën a jafee am hmm. est-ce que yéen en tant que médecin tàmbali ngeen jaaxle ndax situation bi dépassé gu leen pour mu gën a. waaw tàmbali nañoo jaaxle parce que foog naa boo seet boo dégloo média yi xool réseaux sociaux yi médecins yi ñu ngi génn fu nekk di artu nit ñi. di aatu nit ñi di leen xamal ni kat fi mu toll nii situation bi jéggi na dayoo e que bu continuer dina dina gën a xëy na garaaw ci ci sénégalais yëpp. Mm. ndaxte ñun de fi ñu toll nii moom pour le moment au niveau de maatam et notamment à Ourossogui amaguñu ay problème mm. mais d'après information yi ñuy jot à travers réseaux sociaux yi ak yooyu Dakar hôpital yi mi ngi commencé saturé surtout nag ci ñi nga xam ni ñoom ñooy saytu cas grave mooy mm. muy réanimation gis nañu ay publication nit ñi di wax dañuy. Euh, wut place ba sonn pour seeni mbokk ci biir réanimation yi Dakar waaye dana jafe trop pour ñu pour ñu am fa place. Hmm. est-ce que système sanitaire bu Sénégal itam yaakaar nga ni mën ngaa mën naa dékku lii ci wàllu nit waaye itam ci wàllu jumtukaay. Euh, waaw yaakaar naa comme ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko dékkoo woon ci ñaari vague yi weesu. Hmm. bii dinañu fexewaat dékku ko ndaxte lépp rek adaptation la. dinañu fexe adapté wu waat ba dayoo bi troisième vague bi am ñu fexe hôpital yi ñoo ngi noonu bañ jël leen en charge hmm. en dehors de malade yi nga xam ni ñi ngi ñëw hôpital ñi ngi def yeneen stratégie yoo xam ni bokk na ci di saytoo malade yi fi ñu dëkk ci seen kër yi di leen fa di leen fa di leen fa suivre yaakaar naa ak loolu dina tax nombre de malades yi nga xam ni ñoom lañ doon recevoir hôpital mu mu wàññeeku fi ñuy gën a amee problème daal mooy cas yi nga xam ni ay cas grave lañ am day nécessité ñu ñëw biir réanimation te place yi nga xam ne ñoom lañu am réanimation ci dëkk bi yëpp taxu ko su bëri noonu xëy na loolu dinañu indi ay xalaat yoo xam ne dina permettre ñu ubbi ay yeneen centre yoo xam ne pour jël cas grave yooyu la ci dëkk bi mm-hmm. bu cas yi continuer nii moom faaw loolu am mm-hmm. mais ñàkkum euh, médecin yu doy loola yaakaaroon mu mën a doon gàllankoor ci paj mi waaw mm, surtout ci région yi. Mm. lañ gën a nemmeeku loolu parce que fii au niveau de Dakar yaakaar naa médecin yi moom ñu ngi fi mais ci région yi comme lu ci mel ni foofu ci diwaanu Ourossogui bi nga xam ni ñun képp ñoo fay anesthésiste animateur boo bëggee nekk tout le temps ci malade yi yow benn nit dina jafe. Mm. moo tax rek ñuy jàllalee ci lii di lancer appel suñu ministre ne ko comme ni mu ko defee woon ci. vague yu njëkk ya yónnee ñu ay ndaw yoo xam ne dinañ ñëw di ñu jàppale ci liggéey bi pour mu gën a yomb fii ci diwaan yi nga xam ne nekkuñu biir Dakar. Mm-hmm. alors am na seen benn collègue gynécologue jamono yële bu artu woon euh, bi président de la république di def tournéem euh, ci bët gànnaaru réew mi wax ne ay jumtukaay yu doy amuñu ko est-ce que tey euh, am na yeneen gox ci réew mi yoo xam ne ci situation yooyu la ñu nekk ndax yow jot ngaa liggéey ci hôpital Matlaboul Fawzeyni donte ndakaaru nga nekkoon ci dalal jàmm est-ce que mun nga ñu wax tey situation bi ñeel hôpitaux régionaux yu Sénégal notamment ci wàllu. waaw waaw yaakaar naa ñun mën nañ ci wax parce que budul hôpital Matlaboul Fawzeyni jaar nañ hôpital bu Touba euh, tey yàlla def na ñu ngi hôpital régional bu Ourossogui mais constat bi benn la rek dafa mel ni moom boo xasee ba génn Dakar dem ci hôpitalu région yi euh, lépp dafay manqué matériel ba na muy war a euh, nekkee du ko fa du ko mm-hmm. aussi nit ñi nga war a bokkal liggéey bi aussi ñoom dañuy manqué dañuy manqué trop mm-hmm. donc ñuy lancer appel ministre bi ak président pour que ñu gën ñoŋal hôpital yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi comme ni ñu ko defee tabax ay hôpital yu bees mais région yi nga xam ni nag tabaxaluñu leen ay hôpital yu bees te ñu am ay hôpital yu fa nekk ñu fexe dem saytu jumtukaay yi ñu manqué yëpp ñu jox leen ko ak médecin yi nga xam ni dañu fay manqué maa ngi joxe rek exemple région de maatam yëpp nga xam ni amuñu tey un pédiatre ci région boo xam ni dañuy am ay ndaw ñu bëri ñoo xam ne fay tawat xam nga hmm. loolu buñ la ko waxee yow tey xëy na loo xamul la woon mais amuñu fa pédiatre te du pédiatre am na yeneen xeetu médecin yu yo yoo xam ni mhm. ñun amuñu ko matériel tamit kazalika bëri na ay matériel yoo xam ni comme ñun li ñuy yëngu muy anesthésie réanimation mhm. euh, manqué na fa wala ni mu fa toll ak ni mu waroon a toll doyul noonu donc mhm. loolu yëpp muy ay mbir yoo xam ñu ngi ciy lancé appel ñi xam ni ñooy jiite mbirum santé bi pour ñu fexe ci indi ay solution bañ a bàyyi jéye am rek comme niñ ko gisee woon ci hôpitalu Linguère ba ñuy soog a indi matériel bi nga xam ne moom moo mhm. euh, lan ngay wax docteur ñi nga xam ni jàpp nañu ne ba léegi euh, yëf yi amul Covid 19 bi euh, wala itam ni que chiffres yi ñuy joxe tey ay chiffres yu ñu fabriqué la rek pour tiital nit ñi wala pour tënk nit ñi yow mi ne ci biir mbir mi xëy na danga ñu ci mën a gindee. waaw wax sénégalais rek ñu am confiance ci ñi nga xam ni ñooy génn di wax ak ñoom surtout ñi nga xam ni. kër ndaw docteur la ñuy liggéeyee ndax yaakaar naa ñoom amuñu intérêt wu di wax askan wi loo xam ni nekkul dëgg tey man mi di wax ak yow sama akulaay taala mayu ma taxawoon ak nit ñi di leen wax loo xam ne awma ci firnde hmm. donc man damay dund ak malaat yi tous les jours di leen gis di leen faj di xam jafe-jafe yi nga xam ni moom la feebar bi di def ci nit ki ak gàllankoor yi mën a indi hmm. ba ci faagaagal moo tax ñuy artu di artuwaat population bi xamal leen ni feebar bi lu am la te liñ leen di wax ñu koy dégg tamit. lu am na itam ñu jàpp ne yëfi garaawul noonu grippe kese la. bon mënuñu ne garaawul noonu parce que ni muy dalee ñëpp bokkul xam nga hmm. tey amul feebar boo xam ne day dalandoo en même temps ñëpp bokkul ni muy ni muy def ci ñëpp. d'accord waaw comme ni ñu gisee woon feebar bi ci bu njëkk ba. nga xam ni mag ñi la gënoon a sonal ak ñi nga xam ni xëy na dañoo amoon ay feebar yu làqu wala yu ñuy faj. Hmm. bii nag gis nañ ni moom bàyyiwul kenn day dal xale day dal mag mën na dal xale nag mu néew ci forme boo xam ni du garaaw noonu. comme mën hmm. na mu dalee xale. aussi mu dal ko ci dalin boo xam ni vraiment gàllankoor la ba faagaagal mun ci am. Hmm. ci seen cas na ci ay jeunes. bien sûr bien sûr cas grave nga xam ne moom la ñu jot a recevoir ci deuxième vague bi fële ci hôpital Ourossogui yi nga xam ni fa la ñu nekk di liggéey. gis nañ ci ay jeunes ñu ko am dix neuf ans ko am trente quatre ans ainsi donc ay jeunes bu baax am na ci. Mhm. Mhm. vaccin bi itam coow li euh, lëmbe woon na que ñu bari nii euh, xëy na euh, vaccin yi mënul ci variant bi dara ñeneen moom jàpp ni sax vaccin bi xëy na yeneen jubluwaay lañu ci am ci wàllum vaccin bi aussi lan nga ci mën a wax ndax jàpp nga ne tey solution la ngir xeex feebar bi. waaw en tant que scientifique damay jàpp ni vaccin bi solution la ndax boo xoolee li nga xam ni moo ñu jiitu ñun. feebar yi nga xam ne yépp dafa ñëwoon doon gàllankoor nit ñi te mm. tey gisatuñu ko noonu c'est grâce à la vaccination moom moo tax feebar mm. yooyu tey gisatuñu leen mën nañ ci site comme lu ci mel ni euh, euh, ngas ñun mm. ñëpp ñu ngi fàttaliku jamonoy ngas xale yi mais léegi xale yi dañuy ngas presque kenn ça passe inaperçu mm-hmm. seulement que problème mu vaccin bi fi ñu toll ñun mooy que suñu jamono la suñu jamono la le coronavirus bu bees bi nii mm. euh, tombeel vaccin yi ñu war ko ci produire mm. donc moo waral xëy na euh, débat ak waxtaan yi nga xam ne yëpp ñi ñi ko ñi ñi ngi ko ciy soulever mm. mais di rassurer sénégalais rek ne leen résultat yi nga xam ne c'est issu des sociétés scientifiques nga xam ne ñooñu ñu autonome lañ kenn nekkul seeni ginnaaw mm-hmm. te njëriñu askan bi kese moo leen tax di wax résultat yi ñu jot publier gum ci vaccination bi am nañ ci yaakaar ndax même bu fekkee ni waralut feebar bi mu dal la mm. dina tax ba feebar bi xëy na nim la doon dalee gàllankoor yi mu mën a am dana ko dana ko dana ko wàññi. Mm-hmm. waaw ba wala sax dina fexe ba nga xam ni bu la dalee tamit doo yow doo yeggi sa yegg ci yi nga xam ne moom la ñuy wax ay ay cas grave ma foog ni mm. loolu avancé bu bu mag a mag la ci ci feebar bi ndax liñ ciy gën a ragal rek mooy gàllankoor yooyu nga xam ni mm. moom lay indi Mm-hmm. jërëjëf docteur Bakary Thior ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi xëy na bu dee amoo leneen loo ci sànni kàddu ñu ñu yeewi la ndax xam naa ni maladie ñu ngi lay xaar te itam nuru nga ku sonn lool. waa xanaa di woo askan bi rek. Mm-hmm. ci ñu respecté li ñu xam ni moom lañ ñu digal pour ñu mucc ci feebar bi. Mm-hmm. mooy fu ñu toll di sol masque fi mu toll nii moom nañu ko def mu systématique fu nit waaye di dem rek nar fa taseeg mbooloo na. na sol masque mm-hmm. ñuy faral di fàttaliku lu ñuy raxas loxo yi. Mm-hmm. te lépp li nga xam ne rek ay événement la yoo xam ni lu mën a ñàkk la ñu bañ cee dem. Mm-hmm. ñuy woo rek di ñaan suñu nguur gi tamit yenn événement yi nga xam ni lu ci mel ni concert yi ñuy dégg yi nga xam ni ñu koy préparé wu ak yeneen yi nga xam day rassembler mbooloo mu bari. gouvernement bi jël ay matuwaay génn ay mesures restrictives yoo xam ne dina tax événement yooyu du am. waaye ñu leen di ñaanaale rek sànq dañ koo fàtte. Mm-hmm. suñu am na ay collègues yu ñu interpellé woon. Mm-hmm. wax ñu ni ñi ngi liggéey ci CTE bi dëpp ay weer sonn ci. Mm-hmm. te jotuñu seen payoor donc loolu ñu ci attirer attention président de la république ak ministère bi ñu saytu ji noonu li nga xam ni. xaalis la buñ leen war a jox ñu jox leen ko ndax tamit ci liggéey boobu ñuy def ci la ñuy yoree seen njaboot te bu ñu leen fayul duñ mën a yore seen njaboot ba ñuy mën a faj malaat yi ni